ausubillahi min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad mbokki jullit yi seen soppee oustaz Cheikh Ahmad Tidiane Gueye moo fi ànd ak ak Essa Mbaye delsiwaat fii Sahel Network TV ci Independence Drive Banjul isil leen tey gamo spécial Faniye weeri koor fan yi yépp watanayen, leen mbir ne sëñ Cheikh mu li ko dooree lundi ba ajuma te nag ci samedi ji dañ leen isil spécial gàmm goo xam ne nii moom lañ leen isil pour weeri koor wi ànd ak ko nag ak daayira sëñ soppa sëñ Babacar Si Baye Ma Diop ak groupe am insha allahu rabbi te nañ leen defal loo xam ne nii ah lu mucc ayib lay doon sëñ Cheikh loo ñëwee tey تبارك الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بيون جيخو جيخو واكو سيل دو جيخ تبارك الله يني ني توپ تي سين بي دي ساحل ندوك تي في نيكو الحاج ايسا واخي رك تاي موم بيسو يونت الله محمد لا موي بيسو رسول الله لا موم ميغا خامن يالا موم لا نيو جوخوج ولكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخره تاي نك تبارك الله tey daal képp ku nuy seetaan tabaarakallaahu na nga jël sa loxo rek di fittasu wala tabaarakallaahu ngay kontaan sa xol di neex ndax ki ñuy joobe moo ko mate ki ñuy joobe moo ko jare ki ñuy tagg moo ko mate muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf sëñ Cheikh Baye Madiop programme bango yaa ngi fii ci Sahel Network TV ci Independence Drive Banjul ah boroom kër gi di Mr Aboubacar Bathily ànd ak soxnaam soxna Oumy li ñoom ñoo ñu dalal fii ci waxtaani weeri koor waaye tey jii nag dañ am spécial gàmmo pour weeri koor wi ànd ko ak Cheikh Tidiane Gueye ak soppi sëñ Babacar Baye Ma Diop loo isil askan wi وقد تواصلت يا رحمن يا ثقتي يا مغنيا دافع الأوزان سيدي أسمائك الحسنى وأعظم بها والأنبياء ومستعين سكين ينن زاد المواهب أسماء الهادي ما لنقل على النبي وعلي أجمعين سلام ربنا دائما يا رسول الله المواهب أسماء الورى تبقى على العلوم فيه إلا الياء سيد الحال ما على نبي وصحب الله ويا المدينة سلام نبينا دائما الآن صحابة يا النون خديجة وعلي وابن عائشة ومن بدعوتي صحابة

Sabaya, la khoyiti ka sabaya. Iti ko sabay. So,

Nabi Abdullah ya Nabi Abdullah ya Nabi Abdullah ya Nabi Abdullah Viernes yéene loxo ca kaw yéene ni mi ana soppe yéene moom yéene ni mi loxo ca kaw yéene ni mi moom yéene صل على المغمور سيدنا واقبل شفاعته فينا ولا ندمي تبارك الله واهتقي الله الحمد لله رب العالمين كيف كوي سيتان سهل ندوك تي bu fi yemoon sax tabaarakallaahu neex na ndax rasulillahi rek a neex yonent yàlla muhammad rek moom la ñuy wax sa xol di sedd moom la ñuy wax sa xol di bëgg moom rek la ñuy wax tabaarakallaahu mu yëg ne nga yëg ne ku dul yonent bi ku dul yàlla muhammad la gën sallallahu alayhi wa sallam waaye mu jóo nga xam ne tabaarakallaahu seet baa di nam tant yi nam nañ leen lool waaye tabaarakallaahu xam naa ne ah, ah ka ka ka coronavirus bi moom ci maanaam maanaam du am dooleem ak tabaarakallaa am lépp ma tax na baare gaa yëpp ci tant yi waaye fii moom ci Sahel Network TV ñoom tabaarakallaa la woon fa woon ñëwoon fa woon na woon fa woon kon yan yàlla dimbale bëgg loo ñu rasulullah yëg nga ne weeru koor wi lu muy rëy rëy ak lu julli di rëy rëy ak asakaak lu lépp di rëy rëy fexe am tofeel ci yonent Yàlla Muhammad loolu rek tabaarakallaa yëg nga ne mag ñi li tax ñu raw ñu du dara lu dul sopp yun ci Muhammad fii nag ci na Ndogo TV ñu amal ci gàmm hmm. nag suñ ko waxee mooy kan mooy tagg rasulullah tagg yun ci yàlla Muhammad wax ay jaar-jaaram ñu nag suñu sëriñ ba sunu wasiila ba sunu xarit ba hmm. borom palasoor ba tabarakallahu bàyyi sëriñ Babacar Si radiallahu taala anhu góor gu baax ga góor gu topp ga sunna ga góor ga bu la dara yéem ci Seydi Hadji Malick lu dul yonent Yàlla Muhammad fu mu teggi xoon tànkam Maodo ne danaa fexe ba teg fa sama tànk kon ku la raw ci yonent bi moo la raw Seydi Hajji Maalik nag moomu tabaarakallaahu foog naa ne suñ ne gàmm fii ci Sahel Network TV yaakaar naa ne du génn xilaas dahab waaye nag danañ dem seeti maam borom Touba. Ahmad Bamba bàyyi Basak Baara la mu wax moom it ci rasulullah yi danañ seeti El Hadj Abdoulaye ak njabootam danañ seeti El Omar Daw danañ seeti ñu ama dem Sokone danañ seeti danañ seeti kenn ku ne la nga bind wax ko ci Seydina Muhammad len nat lañ ci xam danañ ko wax hmm. waaye nag tey bàyyi ma jox foog naa ne hmm. ca Abdou Aziz Mbaye na koy waxee wa innahu in arada allahu abana min nuurihi nuura nabil alamin moom laa a firi Israel. إنه إسحاق ودلاه نشأتنا أتنا أبانا من نوره نورا بالعالمين وصل يا إله وهي والثياب أبدا إله إلا الله أبدا أكدا عنا محمد مختار في الدم وإنه إف أراد الله نشأتنا أبانا من نوره نور النبي العالمي يعني يلا فعلوا بايا لاجي مالك نعم. موضوع وإنه خم موي أنه لما تعلقت إرادة الحق بإيجاد خلقه وتخدير رزقه خم نلوم دهم أبرز حقيقة المحمدية من الأنوار السمدية في حضرة الأهدية موي وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبانا من نوره نورا بالعالمين Mhm. Alaaji Maalik daf ko wax ñi déggul wala ñi déggul fa mu waxee mhm. ñëpp tàmbali am ñu koy contour xam nga lu muy firi ci olof mm. wa innahu lii mbir tey dëgg te jaalu kuy am xel war koo xam xam nga mooy la mm. nee na is araada ba décidé mooy ba nammee mm-hmm. allahu càppaaculi gi mooy yàlla nas atanaa amal sunu mooy nas sos sunu mm-hmm. nee na abaana la faccalee min nuurihi ci leeru boppam nga moom yàlla na nabi leeru sayduna muhammad ga ala alami que ñëpp xam mooy yonent bi mooy alam hmm. alam buñ ko waxee mooy booy ñëw bànjul comme aj bi hmm. jarul laajte booy dugg rek aj bi moo lay tiim hmm. koo mën a doon booy dugg ci ronam ngay jaar yonent bi nag mooy alam Mm. mooy kenn mënta jaar ci yàlla loolu boobu da jaar ci ron Seydina Muhammad mm. kenn mënta jóge ci yàlla loolu boobu da jaar ci ron Rasulullahi alaaji maa ne woy bayit bi bayit bi jaxal gaa yi ndax innahu demir gi demiru sëni la demiru sëni mooy yàlla ci boppam mooy innahu alquran utilisé na waxee na wax yu demee noonu alaaji maa bi waxee na loolu te gaa yi dañ ne ko li nga wax ëpp na abaana min nuurihi leeru yàlla nga bu ca amee lu ca génn day mel ni kon yàlla wàññeeku na seen sëñ Babacar si wax nañ ne bi muy firi innahu is araada law nas atana gàmm ga ba muy génn ten o'clock la génn ca gàmm ga ten mm-hmm. la génn gaa yi tegal ko tugg yi sëñ Babacar génn fa tàmbali firi ma te la doon firi gaa yi innahu lii mbir tey dëgg te jaadu ku am xel war koo xam mu ne is araada ba namee allahu yàlla nas atana sosunu sosunu ci lan mooy yàlla bi mu bëggee bind mbindeef yàlla bi mu bëggee bind adduna yàlla bi mu bëggee bind alaxira yàlla ba mu bëggee bind malaaka yàlla ba mu bëggee bind xaras yàlla ba mu bëggee bind kursiyu yàlla ba mu bëggee bind jant yàlla ba mu bëggee bind weer ku yàlla yàlla la mu bëgg bind yëpp nee na bi mu ko bëggee bind dafa abrasa xaqiqatal muhammadiya hmm. yàlla dafa génnee ci leeram gi mooy xaqiqatul muhammad yi xaqiqatul muhammad yi nag nit mënu ko xam ci àdduna ndax yàlla ci boppam ñun lawlam yàllu nga jàng fan ca taysiir ba de hmm. lawlam yàllu fi fada waaw il kawni talaatun tabqa albariyatu fi Allah